salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gaa yi xam nga lan moo yàq seen seen affaire yéen da ngeen may laaj loo xamante nii ci alxuraan man jëfewu ma ko yéen leer na leen du ngeen ko jëfe te ñu koy jëfe bëriwul li gën a bon mooy nga jàng alxuraan xam li yàlla wax ci alxuraan te doo ko jëfe man ci laa bokk keneen ak keneen bëri na ay kilifa yu bëri yoo xam ne xam naa leen ñu wàcci kaamil bi jàng xam-xam te duñ ko jëfe ban sens la am njaaloo kay li ci yàlla wax leen na téere baa ngi nii déggoo la yàlla wax xaaral ma génneel la ko liiral la ko lii jërul laaj nee na sunu borom nee na asaaniyatu nee na asaaniyatu njaalookat bu góor wasaani ak bu jigéen fañ li doonal leen dóor kullu waaxidin képp kenn min huma ci ñoom ñaar mi ata jallatin téeméer yar kan lan fi dóorati téeméer yar kan lan fi dóorati téeméer boo ñëwee ba ci dee bi moo gën a garaaw sunu borom nee na asaani njaalookat bu jigéen asafurlaa njaalookat bu góor parce que asaani góor la asaani njaalookat bu góor laa yun koxu du takk ilaa saani yetun lu dul njaalookat bu jigéen aw musrikatun wala bokkaalekatu yàlla règlement bi xam nga ne kenn doxalu ko kan moo doxa loolu njaalookat bu góor bi njaalookat bu jigéen lañ ko war a may wala bokkaalekatu yàlla dañ bàyyi suñ jaaxaan yi